maa ngi jàlle eh, askan wi yëpp di jàlle sëtu wàllu yi bu baax bi di yàlla na ko yàlla nga xaral ci aljana damaa dégg ñu naan firdawsi si day ñun ñoo koy wax rek waaye aljana moom bu dàq bu aljana bu dàq yent aljana yent yàlla Muhammad amul te yent yàlla Muhammad demul firdawsi teewaayu boromam te yàlla ko yàlla taas ci barke maamam wala yooyu ak jëmm ji mu jëmmaloon di lu baax yàlla nañu ci roy tamit sàkku mel nii lu baax la mu daan def mu di ko baax yàlla ko yàlla xaree la jël